yéen a ngi déglu rajo diaspora bi rajo wàllu Dakar point com. yéen a ngi déglu rajo allo Dakar point com. Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de allodakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
ban jaaxle taaju na ban jaaxle taaju na fii ci allo dakar point com kër rajo tamtam online man la Modibo togal leen fii euh, tey jii nii euh, mercredi 4 mai 2022 ngeen koy déglu en exclusivité fii ci rajo allo dakar point com yéen a ngi koy déglu ci seen téléphone su ngeen nekkee fii ci France ci 02 49 17 49 26 live and direct ca France 02 49 17 49 26 bu ngeen nekkee fii ci Canada ak euh, Amérique mu ngeen ko déglu ci 605 472 9147 605 472 91 47 Alors, comme niñ koy defee rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais yi ñun diaspora bi fii la ñu koy waxtaanee fii la ñu koy taataane koom-koomu Sénégal koom-koomu Afrique ak koom-koomu àdduna bi ñu ànd ci ak sunu partenaires yi Banque de l'Habitat du Sénégal euh, fii ci États-Unis alors ñoom ñooy taxaw immigré yi ci wàllu yónnee xaalis yónnee ay fonds en euh, ak yu ni mel banque de l'habitat du Sénégal ñu ngi leen di yégal ni tey ñu ngi doon weccee ko xaalis bi un dollar pour six cent vingt six francs CFA loolu lañ doon weccee ko xaalis bi un dollar six cent vingt six francs CFA banque de l'habitat du Sénégal ñooy partenaire immigré yi gars yi temps yi moom dollar bi dollar bi am na doole de. waaw mën na ngeen di fàttaliku daaw maa ngi leen doon wax di dollar bi dollar bi mille mille francs CFA la jëm mille francs parce que xaw ma naka la sunu économie genre sunu dëkk yi naka la ñu mën a génnee ci problème mu àdduna bi actuellement xam nga dañ doon wax way Covid bi jàppal bàyyil guerru Ukraine bi nag faaf ñëw man ku ma ne woon mburu Sénégal farine bi koy defaree Ukraine wala Russie lay jóge duma la gëm. man defe naa ne mburu mi mooy mooy mooy dugub bi ñuy bay ci àll bi rek ndekete yoo non gars yi dañ ñu tàmmal yu bon xaw ma kan moo fi indi mburu mu weex Sénégal ba affaire bi comme drogue nit ñi dañ defe ne drogue affaire yu yàmbaa rek la ak jàppal bàyyil mais non am na drogue yu gën a garaaw yoo xam ni ay mburu ay suukar yooyu mooy drogue yi gën d'ailleurs mooy mooy rey nit ñi rek Sénégal la ay lekk yu weex yi nii suukar ay ay ay ay ay ay farine yu weex meew mu weex moo moo moo feebar ñëpp Sénégal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp moo leen feebar drogue yu bon bona bona bona bon la ñu tubaab yi la ñu tubaab bi tàmmal drogue yu bona bona bon mburu suukar ak pëndaxu meew mu weex non et puis noonu la ñuy yombe nag noonu la ñuy yombe baadoole yi dañ ci rey seen bopp laa wax feebar façon feebar feebar yoo daawul dégg Sénégal léegi nga fay dégg feebar yoo ay mais xale yu tuuti dañuy yeew dañuy dañuy juddu du ñu am sax 15 ans ñu naan la dañu jabet dañu asma de comme ni ma ko waxee c'est-à-dire Sénégal li fa gën a jafe léegi gis jamaa jamaa gis jamaa ci suuf si moo gën a yomb gis nit ku wér nit ku wér péng koo xam ne layul dara koo gis mi ngi ne sama ndigg day metti sama tànk day metti sama bopp day metti dama amee estomac te koo gis am na lu muy lay koo gis am na lu muy lay man booy booy am tey en tout cas doy na waar quoi boole ci tamit xam nga rek hôpitaux yi dara new fa baaxul dara baaxul fa dara dara en fait hôpitaux yi muur waar la quoi boo bëggee dee Sénégal boo bëggee dee demal hôpital yu wam nga toog sa kër a booy dem hôpital d'abord li ñuy njëkk def mooy fexe bu ñu bu ñu xamee ni yow say say say say mbokk am nañu as tuut wala am nga mbokku immigré dañuy pomper xaalis bay pomper xaalis bi bu ñu xamee ne xaalis bi dee na jeex na ñu bàyyi sa malade bi dootuñu ko toppatoo rek mu dee non mais non mais li xew ci hôpitaux yi Sénégal yi saa yi ñuy gis nii ay femme boobu xaw ma dee Louga xaw ma mais Sénégal bés bu ne nit dee fa ndax négligence ci hôpitaux yi da ngay feebar yoroo xaalis boo demee duñ la faj parce que yoroo xaalis loolu moo am ci hôpitaux yi bu sa mbokk yi amee amee amee as tuut dañ leen di def dem leen di pharmacie bi c'est-à-dire hôpitaux yi ci boppam sax xam nga hôpitaux bu normal hôpital bu normal da ngay am pharmacie ci biir nga xam ni sur le champ tout de suite bu urgence amee ñu ubbi pharmacie bi mais boole ko ci fay bi fine mais lu affaire bi urgent urgent c'est-à-dire sa mbokk dañ koy war a opérer nii dans cinq minutes ñu bind la sa waa kër ni la demal ci demal ci kii bi demal ci nu mu tudd demal ci pharmacie bi nga jënd kayit nga jënd nga jënd matériel bi te matériel bi su ñëwul ñoom du ñu mën a opérer hôpitaux yi ci boppam pharmacie amu fa xam ne nag affaire bi sama waay da ngay waaru affaire bi c'est non boo buggee dee Sénégal boo buggee dee dëgg-dëgg boo doyalee demal rek hôpital demal hôpital demal hôpital boo bëggee dee dee bu gaaw demal hôpital ah non man I'm telling you man ay ah c'est c'est c'est dommage quoi et ñi nga xam ni ñoom la ñu ñoo war a gérer affaire yi ñii nekk ci nguur gi classe su Macky Sall geeg kii am mais taluñu taluñu équipé hôpitaux yi defar hôpitaux yi non dañuy dañuy saalal rek léeg-léeg ñu indi tabax ñaari birig ñëw dégg nga maam naan dañuy inauguré bu ñu inauguré dégg nga maam dara après ñu yenu matériel bi yóbbu bu ñu defee seen photo op ba pare woo presse bi ñu wane matériel bi ñu roñ matériel bi. dàq beneen hôpital ñoom daal dañu yor ay matériel yu bees yoo xam dañ koy denc saa yu saa yu gars yi defaree benn benn tabax daal di imini matériel yi sol ko ci woo presse bi ñëpp gis ñu photo filmer le lendemain ñu roñ comme ni ñu doon def ci terre bi indi ay fleur jàppal bàyyil gars yi filmer woon nañ ko te def ko ci réseaux sociaux yi fleur yu nice jàppal bàyyil ay garab ak lépp ci ay pot le lendemain ñu filmer leen ñu ko ñu koy roñ di ko yóbbu non xam nga xam nga xam nga li ñu naan li américains yi naan first impression last ñoom ci gars yi ci affaire boobu la ñuy ko c'est-à-dire dañoo dañu ay ay ay ay ay ay nu mu tuddee nu ñu koy waxee nii dañuy dañuy table ci première impression nit ñi am ci seen liggéey quoi après le reste ils s'en foutent dañuy defar hôpitaux léegi yor nañu benn camion boo xam ni benn ensemble matériel a ngi ci yu bees sàq ci mbuus yeeg lépp su ñu demee benn dëkk defar fa tabax fa benn affaire ñu daal di siffler camion bi ñëw benn camion boobu de ñu indi matériel bi teg daal di woo monsieur le maire délégué de quartier yeeg comité femmes yeeg ñëpp woo leen ñu ñëw saa waay sabar yi dàqe pendant toute la reyal leen ay xar ñu lekk ñu woo presse bi ñu filmer way Macky Sall defarati na hôpital jàppal bàyyil kërti kërti mais gis nga bu guddi gi bu maraxmaase rek camion bi arrière roñaat matériel bi yëpp yóbbu yëpp bu gaa yi waxee ñu leen dañu ko yóbbu Dakar comme ça ñu calibrer ajuster mais affaire bi dina ñëw ñu fàtteeti daal di dàq beneen beneen région léeg-léeg ñu toog nag di calculer na waaye Macky def na temps hôpital région bu ne def na fa hôpital boo demee doo fekk benn matériel ci biir hôpital bi dara matériel bu amoon ci hôpitaux yi nga def ne kon ay femme femme boobu dana dee foofu ci lu c'est vrai que yàlla mooy rey mais am na affaire yoo xam ne moom boo ci boo ci boo ci farlul yàlla jël jëm parce que yàlla ñu moom boo toppatool ay yëfa mu jël ko te Sénégal nag dañoo topp dañoo dañoo toppatoo mbiru yàlla dañ koo toppatoo nit ñi yeneen lañu tal yeneen lañu tal yeneen lañu tal ba bu voté jotee sax ñu voté ay ay ay ay espèce su baadoo la yoo xam ni saa yi amuñu yërmande ci askan wi bëgguñu askan wi bëgguñu Sénégal dara sàcc rek toje rek loo teg ñu sàcc ko da nga defee ne dëkk bu respecté boppam ay ñoom classe su Farba Ngom yi danañ fa exister dëkk boo xam ni mérite dafay dox dafa dafa nekk valeur vertu dëkk boo xam ni nit ki bu wanee capacité wane ko ci daara wala école wala ay classe su Farba Senghor yi war nañu taxaw di puub seen kaw Sénégal bu doon dëkk bu respectable sax ay classe su Macky Sall gi waruñu mën a falu c'est pas possible parce que dana fekk nit ñi mën a seetlu mën a ràññee mën a xàmmee mais nit ñi dañuy gëlëm a gëlëm a gëlëm a gëlëm a gëlëm ba daw dugg ci pax boo xam ni fa lañ leen di suure hôpital yaa ngi naan Sénégal moom saay Sénégal daal boo bëggee déggu déggu déggu déggu déggu kii te ñemewoo saay tëdd ci tali bi di, euh, camion kii la demal hôpital demal rek hôpital feebar feebar lu rek nga dem hôpital gars yi eau de javel lañ lay pikiir nga ne nga ne karab waay yow non mais c'est pas possible am na dégg naa benn histoire non mais dégg naa fa benn histoire ah benn garçon de salle garçon de salle de ndekete waa ji imaginel euh, Sowetaas xam nga luy Sowetaas mooy li ñuy wax IR emergency room Sowetaas Sowetaas nga xam ni ay machine la yoo xam ni yii dañuy pompe pour nit ki mën a noyyi jàppal bàyyil ndekete garçon de salle bi gis nga téléphone am waa ji guddi gi yëpp day nekk ci téléphone di koc kocal nekk ci Facebook nekk ci WhatsApp yi nekk ci groupe yi léegi bu bu kii bi jeexee bu bu bu bu téléphone bi déchargé day dem rocc appareil yi nga xam ni moom la ñu branché ci malade yi de sowetaas laa la wax de da ciy rocci branché téléphone am pendant trente minutes malade bi moom ça y est fa lay nekk di kaddi kaddi di sukuraat parce que débranché nañu respirateur artificiel bi ventilateur artificiel bi kee garçon de salle bi day chargé téléphone am affaire u con yooyu ngay dégg may may ma ne non mais c'est pas possible man sooy taasan non mais da ngay jommi ku ci dégg sa sa mbokk te jàpp jël nañ ko yóbbu hôpital bu yóbboo nga ñaanal ko yaa soixante quinze pour cent de chance ñu dellu si rapidement ni la dee na alors affaire réseaux sociaux yi Macky Sall nag nee na affaire bi moom xam naa ni il faut que gouvernement am jóg ci waaw nee na réseaux sociaux yi fi mu ne nii nee na mi ngi yàq Sénégal ah oui ah naka naka naka la koy xeexee ah. wallaay man affaire boobu moo jaaxal dama xamul Macky Sall naka la dara xeexee loolu. ma ne ko yow am mais laay problème bi xam nga sax loolu mënoon na possible parce que am na dëkk yoo xam ne ñoom du lu lu ñëw rek dugg seen dëkk ci internet bi parce que ñoom dañoo moom seen réseau waaw dafay fekk dafay fekk nga am doole mais surtout dafa am loo xam ni dafa am mooy ñun suñu souveraineté ci wàllu télécommunication dañ ko tayle dañ ko dem jaay français yi ba français yi fi mu ne ñoom ñoo mën a tëj ñoo mën a ibbi internet bi ñoo mën a segg ñoo mën a def lu leen neex mais tu vois. tu vois benn dëkk ci àdduna bi benn dëkk rek boobu la Google amul Facebook amul Instagram am fa.
muy Chine nu mu tëddi WhatsApp amu fa dara amu fa lépp luy jóge Amérique amuñu fa.
tu vois muy Chine.
ah tu vois.
ndax ñoom ñoom voilà ñoom ñoom seen satellite gouvernement buy contrôler serveur yi Amérique ci boppam laa.
mais noonu dëkk dëkk gis nga laay kër day am bunt am caabi.
yow mais doo leen bàyyi sa defi caaxaan yi yu dugal ko sa ne ba ba mu teg fii nga naan nga naan ah ah il faut ba réglé ko.
waaw yow ban réglé réglé munu ko daf ko munul sax munu ko munu ko.
waaw waaw France ba ne ko sax bàyyi France ba munu ko. munu nga bëgg koo bëgg.
saay saay
dama ko dégg ay ree ba ma jàpp ko.
non da ngay waaru.
Amérique ngi nii chaque jour benn benn bi nga xam ne lañu am ci budget ci ci kii bi di chaque jour ñu ne la ay trente cinq mille hit la gars yi di ñëw a dugg seen seen seen i circuit wax dëgg non mais c'est c'est c'est.
parce que am na xam ne bu koy wax doon yaakaar ni ñett ñooy conseiller en matière d'information technologique mais comme ay wax ay bêtises yu ni mel. ma ne ko benn seconde ku fi ku fi amoon temps yële ban compte yi gars yi gars yi jaar système bi.
ah
dañ naan ay russe ay russe la xam nga lu mu xaw rek ñu ne russe yi te effectivement ay booy russe la woon. ay jaar ah.
système bi n'est-ce pas paiement bi ak Amérique bi muy bëre ay informaticiens yëpp mënuñ ci dara dañoo mujj négocier ci suuf fay.
vraiment
yow yow Sénégal foofu loolu.
Ah.
maanaam si bopp ay maanaam si bopp la ma tëj koy. da nga amee kër yu taw loolu moom tawul après man da nga naan ay man da dama ko dégg dama ah dama doon ree quoi. mais mais mais regardez moi ces ces jos yi naka la ñuy waxee lii. yow ça sa télécommunication bi jël ko France Télécom jégal ko jégal leen ko.
vraiment ñoom rek ñoo fay buub di ñoom rek ñoo fay buub di buub nga yaakaar ne yow mën ngaa xëy benn jour mooy di gars yi saaga non da ngay war a wax da nga war a seet lan moo tax ñu saag rek leen loolu
ah yaay da ngay waar yow
parce que boo réglé li tax ñu saaga mais saaga dootul am mais réseaux sociaux yi bu ne ko yaa ngi quatre cent cinquante xaw ma ne bu ne ko yaa ngi noonu mbëkk bu am ñaata million yaa yaa ngi ci trois cent cinquante per parti wax réglé loolu loolu gën a yomb
ah nga ne ko loolu ba gën a yomb buuf daa gis trois cent cinquante parti politique amul benn nit ci réew mi danaan ay réseaux sociaux réseaux sociaux dafay fekk nga moom ko wala ñoom ñu baaga wu Sénégal benn réew dong benn réew dong ci biir dara muy Chine donc moom rek la amul te ba ñu xoolee xam ne lii ñu dañ koy utiliser comme comme comme si ñoom ñu tëj ko lii du fi dugg
ah
du dugg du Google du kenn Android bi ñu doon utiliser ñu ñu leen ci bëgg a fàtt ñu ñu supprimer ko defal seen bopp. bi leen fii kii sanctionné du te di Trump Trump sa pe sanctionné Huawei kenn xam deux mois ñu defal seen système Google gis ne dafa jar ñàkk machine commencé wax ñu ne leen non ça va téye leen seen bopp carrément.
waay waay non non en en euh, affaire bi kay saay ki kay feebar feebar feebar bu dul wér mukk la affaire u euh, réseaux sociaux yi non ane buru ji sit buru ji dara Mënuñ ci dara.
moo tax tey yi wax am naa ne boo deful daal affaire affaire affaire Dubaay yooyu mën na Dubaay de mën na leen xool la di bu ñu gën a fat jarul ñuy dem Dubaay mën na Sénégal googu loolu yëpp nga fa
mais mais mais mais mais mais laay xam nga li nga wax nii sànq dama ko doon xalaat mais affaire u yii ñuy wax Dubaï la ñuy def foofu mais Sénégal gars yi dañ ko fay def régul régulier
ma ne la bi bii Sénégal boobu ñu doon wax lan la woon le problème bii Sénégal bi fi gën a lan la woon yeah ay xaw ma naar lañ xaw ma ñu ñëwoon ci géej ba ci Eh, eh.
dem hôpital hôpital effectivement
alors alors pour moo fi bees yeah
boo demee Mbour gën a booy Sénégalais yi yëpp tubaab yi def nañ ay góor da ngay def ay góor jigéen c'est vrai c'est vrai alors lan moo fi
Ah, ah, ah, c'est vrai ah affaire Dubaï yëpp mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mbuur googu boo fa demee da nga fay tubaab yi ñu ngi def loo xale yi eh, exactement li ñu leen di li ñuy def Dubaï foofu di di di leen séyaloog seen xaj yeeg yooyu yooyu rek lañ fa def ah daal yi waaw dem ay ànd ak seen i compétence dem ci tubaab bi nekk sali yëpp Yeah.
ay góor jigéen lañu Mhm. Allez, sûr.
def biir nag rajo day fay taxaw fii ñu fàttali ñi ay parce que bëggoon dama ko lii nga xam ne bi lii man j'étais au courant depuis deux ou trois ans ci ginnaaw lii Ouais.
lu bees du lu bees de daal di sûr.
lu bees ma ne ma ne la non ma ne nag jarul ñi dem Dubaï ma ne dem ak Dakaaru Aha.
it ba koo xam ne waaye yow amul liggéey mosul jàngam sax mu jàngam yeegul yëpp amul amul amul niveau niveau secondaire.
Mhm, yeah.
lépp ba tey jii muy dawal muy dawal ab ab oto buy jar quatre vingt millions nu mu tëddi. ah Range Rover. amul jëkkër amalul jëkkër.
Mm.
ah juddoogul fu am ci alal. boo taxee ñu naan ah day liggéeyu day liggéeyu day mooy lan. dem dellu ji dem am.
Je te dis.
jaaxal bi.
Wallahi wallahi wallahi amee sax dañ bëgg duñ ko bëgg wax.
wallahi.
amul boutique non doo ci gis ku ci am boutique am lii la boo xëyee ñu ne la damay commerce.
Aha.
damay commerce.
Ay commerce ya. Dugg avion yi di yéeg ko wàcc rek.
waaw
Yeah man.
ndax damay commerce. ak commerce boo xam ne kenn gisul la boutique.
waaw kenn gisul la yow doo doo doo rakk doo rakk sa njub.
waaw doo rakk mbay gi.
Waaw.
EFG. nga xëy rek yor benn kii dëkk sa ah li di fay trois cent mille appartement.
Mm.
waaw te mosoo liggéey yow xëy benn jaar ñett rek ni ne ah, yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi lan yaa ngi dem Dubaï yaa ngi dellu.
yaa commerçant def ko da comme ngay def commerce.
def ko mel ni Sénégal pare Sénégal bu lan nit ñi lebee di nga daw ba sonn pour ñu fay la Pour ñu fay la.
benn cinq mille wala dix mille francs produit aha
bàyyi leen seen wax yi ah ma ne ma leen bàyyi leen seen wax yi waay Ouais.
bàyyi leen yii ma leen yii jàgg na fi
Yàgg na fi de.
xanaa kay that is so true man
non dañu yabaate ko dañu yabaate yéen yi yabaate la ko that is so true that is so true yabaate la Euh, démb non rek- def leen buur buur booy booy Dakar yëpp ak seen baral yi yëpp tubaab yi yi yow ay bagages def nañu ay Mhm, jigéen mhm.
yëpp yëpp
ah là là là, c'est c'est- affaire affaire bi dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa situation bi ñàng na ah.
Non, c'est grave, c'est grave.
Nga ne de.
Mais c'est grave. Et de le métier, Yeah.
ça, c'est le- lii lii lii lii. Ça ne fait que débuter.
ñàng na ñàng na de
Et Tabaski, fi nekk Tabaski ay ay ay septembre yooyu.
Mm.
Dana dana dana gën a tar, dana gën a métti trop.
Hmm.
Dana gën a métti trop. Bàyyil ba bàyyil ba pour ñu commencer sanctionner profil yi. Sanctionner góor ñu ñoo ngi nii tey jii fii nag, ñu su gaa- ga- galanoo gaas la, faa gaal.
Mm.
Dakar.
Hmm.
yéen a nekk rek nee na nee na nee na ay ay ressources naturelles bu kii buñ ko jaayee ci benn dëkk boo xam euh, daf leen a sanctionné.
yeah
Européens yi dañoo war a dugg ci euh, lu ci ñu ngi ci dugg ci phase agriculture. parce que war phase phase phase agriculture. seen seen fertil- seen fertiliser yëpp réussir leen koy jaay.
Mm. Mm.
non dañoo créé nañu benn pro benn benn benn affaire boo xam ne loolu les conséquences gisaguñ ko sax.
gisaguñ ko de ah
non gisaguñu dara c'est ce n'est que le début ce n'est que le début européens yi ñoo yo- yi européens yi ñu ko teg ko c'est des c'est des imbéciles
Hmm.
ñëpp ñu yàlla baax na ko yàlla yàlla musal rek allahumma amin taal arme nucléaire ndax ndax ndax Russie boobu ah suñ ko bëggee andil problème de ñu ñu ñu ñu ñu xëpp ñu xëpp ñu xëpp suuf ci cere bi
non du ñu xam suuf non dañ non dañ soo devant dañ soo non waa ji gis nga daf leen a ñàkku ba pare ñoo ko def li muy def
daf ko calculer de
non daf leen a ñàkku ba pare bu leer ko nit ñi amatuñu amatuñu nu mu tëddi amu amuñu défense système de défense missile yi mu yor wala ak yeneen dañ leen tàgg
Chien. ñëw leen ñu waroon naan bu bu la sel wax bu lay woo bu lay bu lay woo ci xeex boobu toog toog di ci ci ci ñalu xeer toog na ci jal
del ko bu lay woo ne ci bu lay woo ci xeex ah boobu toog di ci ñalu xeer barke rasulilaay barke rasulilaay ah fi mu ne de ku yow def attention de
ah loolu yow dafa attention ah man wax naa ko sunu waa kër dinaa ko buy buy gars yi di dof dof lu léegi léegi bu taal lamp yi te bu taalee lamp yi bii bu yem ngeen teg ñu ngeen ngeen saraxel ndax ñun pare nañ te lu ñu dellu si.
Chien, tet, tet, tet, tet, tet. Wouh!
alors loolu daf daf leen a jekku dafa jekku occidentaux yi jekku Amérique ba pare doog a def li muy def.
Yeah, man. mais laaj suñu dëkk yi suñu suñu dëkk yi Sénégal naka la mën a génne situation bi actuellement
waaw xam nga oh, bu- guerre nucléaire amoon dafay arrangé Afrique
ah guerre nucléaire ba amoon non occidentaux yi rek ay dee. Occident Occident rek lay doon seen biir ñu ngi yàqante
ah Afrique rek Afrique Afrique ak Amérique latine ñooñu nag fi mu ne nii ñoom ñooy ñooy ñooy doon les deux les deux générations du monde parce que guerre boobu bu tàmb bu bu bu demee nucléaire boobu affaire ak yu yu bëri dañ fa doxee rek la seen problème seen biir. yu te boobaa doo doo Israël ak arabe yi nu mu tëddi nu mu tëddi ay Japon yu yëpp dañ di raser ji Inde ak Pakistan ñu rasante
waay donc yooyu yëpp doon détention la dañ ciy profité benn guerre ba jàll ku ci ne da ngay jéem a régler sa problème sa yaag sa yaag sa kii donc l'Afrique ñoom moo tax ñoom la affaire bi arrangé Afrique moom ak Amérique latine ñoom daf ñuy arrangé daf ñuy arrangé large ko
cey moom gaa yi fi nekk moom bu ñëwoo sa nuyu bokk ja- saraxel bi wante moom du kenn kenn du ñibbi
kenn du bouger
ah foo foo jëm créé kay ku mu tàkk waa- waa ji waa ji fi mu nekk ni teg na chargé de chargé de missile yi yi yi yi yi tubaab yi woowee satal de chargé de leen ci orbite ba pare def bu ci nekk cinq tête nucléaire
buy bës rek affaire yi di tàkk
ma ne la benn tête nucléaire bu ci nekk one mégaton la one hundred mégaton la te Hiroshima américain yi bi ñu koy yóbbu quinze mégaton dong la woon dañ la yëpp di ko di nga tale yi ñu waxee dañ wax- dañ la wax yëpp dara lu ci dëgg yëpp ay fen lépp day doxal seen orbite ba loolu muy xaar rek gaa yi ne bii nag bu bës di la bësee kon xoolal trois la soxla pour raser Europe yëpp cinq pour raser Amérique ak ak Canada cinq rek bu sànnee cinq fii raser Amérique Canada ndax du fi des
si danañ Amérique dana toog danañ toog huit ans oui ba été du am huit ans été du am léppay lëndëm
lépp hiver lay doon
ah lay si
alors non gars yi fi mu ne nii moom foofu la foofu si si bi dëkkam moo nekk en jeu du ko pétaat du du ci- du ko foowee
oh oh ah du ko foowee c'est la survie de la Russie qui est en jeu donc du ko foowee gars yi taxaw fii lu leen neex seen yëf jaar yi nekk seen rajo yi di fen rek lu leen neex te wax faalewu leen oh fi mu ne foo faa sa vieillard mag mag mag mag sa mag sa dugub dubbeewu Washington bi day def foo faa rek dëkk bi dëkk bi tax ko
si
ah non c'est sérieux c'est sérieux xam nga waa ji pare na ak Ukraine ba pare mais ñoom ñooy continuer léegi di xam ne Ukraine di ko jox ay armes bu ko xool nag armes yi koy jox yàlla bu ñu dof dof la ba jox ko arme moo xam day laal day laal biir mën ko mu raale Ukraine
allahu akbar waay laay laay laay affaire bi nga wax garaaw na de
ah lii nag gars yi wax bi ci rajo yi def laal la Ukraine lii du dëgg dëgg Ukraine la Ukraine boo xam ne tey jii bu nekkoon bu nekkoon réew en Afrique xam nga ban ban dëkk lay tolloo ci kaw ah
ay ay ay Kenya ay Tanzanie ay Ghana yooyu la bokk tolloo ci kër yooyu kooku ba fu muy jaar ba dugal la vraiment ñu bàyyi seen wax jaaxaar yi nekk ci tali yi di wax.
vraiment
non quand même il faut qu'on soit sérieux quoi. li mu nekk nii li mu leen li mu li mu leen jekku te gis nga boo su ma paree noonu ba jël la l'est de l'Ukraine la nga xam ne fa la liturgie yu liturgie yu we- lépp luy feer ak ay teg ci titanium ak yooyu yëpp.
waaw wala def bu koy dara dagg def ko beneen état divisé ko par deux loolu nag fi mu nekk nii yii loolu la ñuy bañ région bi dana am kenn mënu ci dara parce que ñi dëkk côté boobu yëpp c'est des russophones wala ay ay Chypre cypriote wala ay ay ay ay ay ay ay ay kii ay grec loolu léegi loolu bu ko daggee ça fait que il aura le contrôle de quatre vingt quinze pour cent de de de ñi tay tay jóob tay tay jóob bi nga xam ne yii yii yëpp avion bu ndaw hélice ciy defaree da moteur ba tay tay jóob la te quatre vingt dix pour cent yi moom la moom moo ko yor léegi la dox leen jaay
ah bëgg jaay buy def mais looloo tax ñoom it ñu bëgg ci taw bañ loolu am
waay daa yi mënul dara du guerre bi du dara du du ressource ressource ressource russe yi dañ teg seen bakkan dañ teg seen bët bët mën nañ ko def Afrique comme ñëw na Afrique de magasin bi raser Afrique mooy xamoon nañ xamoon nañ leen africain la jeunesse africaine boo gisee fu ci nekk bu amee révolution bu aw gars yi génn dans plus gars yi doo fu ñu di il faut lire ce qui se passe dans le monde
C'est...
donc dañu ne ñoo bëgg indi problème parce que li si indi ko créé boobu c'est terminé c'est fini benn portion bu doo ko laissé en l'est su paree il va déclarer zone de tamponné kenn du ko dugg pare armé leen ba pare téye ay yenn yenn kii ci wet dafa kenn du ko dugg moom il aura le contrôle de quatre-vingt-dix pour cent du titanium mondial
Ouais.
te ñoom ñii yëpp seen industrie armement dañuy soxla moteur te moteur yi avion yi defar yi defar ci avion yi hélice yi yëpp titanium muy cible di militaire hélicoptère yi yëpp seen hélice yi titanium
te xam nga sa aussi dañ koy dafa am application médicale platine yi de- faj faja yax yeeg yooyu
fertilizer la bi cinquante cinquante pour cent bi daw Europe yëpp seen fil- seen agriculture yëpp riche ba wala ko jaay ba pare yor leen es yor leen pétrole yor leen essence yor leen gaz ba pare ñëpp bëgg a xëy di comme jéem a indil problème mais bu dee xaar leen xaaral ba mu ba ba ba ba mu nag coupé coupé coupé pétrole ak yooyu Allemagne économie bi dafay daanu complètement
non européen européen européen yi fi mu ne jaaxle nañu ah
ah mais fi mu ne nii doo ñu dugal seen loxo ba ba pare léegi nag yéeme ko génn. salarié Mhm. Mhm.
ah mënu fi génn salarié donc euh, géostratégie géopolitique boobu ñu bëri dañ fi nekk man on a un vieillard là qui est là koo xam ne day seet xamul dara ko le gars là dama ko yërëm ko dama ko yërëm parce que illusion la ñuy dawee quoi ay membre yi ma nga jékki-jékki-jékki ne way il y a un nouvel ordre mondial mais on va on on va être toujours le leader et da nga yaakaar ne Russie ak Chine dinañ toog nga nekk sa leader bi
Mm.
yow kay yow kay neel kay léegi yàlla loolu ordre mondial on va renégocier wante da da Amérique nekk leader fi mu ne nii dollar bi nga nekk nii fi mu ne nii yéegal ni ko pour sàcc alors loolu rek la ci dugal si yéeg gi ngay yéeg yëpp sàcc la sàcc di wol tout court
Mm.
non dañu nekk ci ñu nekk ci ci situation économique xam nga yàgg na ma ne leen on est ci ci keneen ñoom ñi ñëpp tous les pays occidentaux seen économie yi ci collapse ñoom ñëpp a ngi ci sukuraat ñoom ñëpp a ngi ci sukuraat mais dañ Europe Europe ba mu nekk seen suuf amul amul ressource da ca am tuuti pétrole wala tuuti gaz la terminé amuñu dara.
Hmm.
problème bii di coow nii nii dix pour cent de son village yëpp ci Russie moo ko jaay ak li muy sàcc Afrique yëpp li muy sàcc sàcc Afrique day jënd ci day jënd ci ci ci Russie
Mm, mm, mm, mm, mm, mm.
non les choses ont changé bro les choses ont changé ils vont changer kenn ku ci dara c'est irréversible waa ji dafa toog ba mu leer ko de am na ay missiles yoo xam ne gars yi mënuñu ko téye Mhm.
ba pare bu koy tesee bu koy bu koy bu koy dóor gars yi di ko précision bi nee nañ précision bi bi missile yi am rapidité bu ñu am day daf gën a jaaxam nee na bu mag bi nag jógagul bi nga xam ne moom la préparé pour raser Europe ak Amérique donc amuñu système de défense amuñu système de défense moom moom wax nañ ko fii bu teel naa ci généraux di on n'a pas de système de défense contre hypersonique Chine tamit am na ko Chine am na hypersonique
Mm.
am na hypersonique ah Chine test na ko ba ñu yëg ko ba mu ñu wan leen mu mu wan leen mu wan leen résultat am Chine Chine daf leen a daf leen a woo ba ñu wuyu ko ñu Pentagon mu leen tàllee seen i seen mu leen tàllee seen i seen i seen i seen i radar ak seen i seen i kii seen i seen sas yi ñu tàllee seen satellite boobu satellite de communication bi newoon ci kaw bu jël mbir ba dóor ko Mm.
pour daa daaneel misul daaneel satellite de communication ba xam fa la satellite yëpp nekk bu wax ne Amérique la bés bu kenn dof dof la fii loolu laay njëkk def seen satellite militaire yëpp lay daal di def ba pare nag jàkkaarloo gi bu boobaa bu sëñ aveugle aveugle donc Chine bëggee def loolu tey ñu ne bi si bi ñu si yor ba moo ëpp précision. kon dañuy femme yoo xam ne dañuy foowee àdduna bi ko dañuy foowee àdduna bi. pour naa xam nañu bu dee sax sa nguur day jeex nii nga andi ceeb moom mais boo ko bëggee défier jaayir bu wal boppam. lii fi taxaw di la wax ni télé yeeg yeeg yëpp ay fen la dara du ci dëgg comme bi ñu doon fenee ci affaire Libye yi dañu fenee ci ci kii nu mu tëddi Irak dañu fenee ci ci Syrie c'est la même chose propagande mensonge tout court. malheureusement am na dañoo xam ne dañ ko gëm ko bàyyi leen wax yi fen yi kese lañu wax dara du ci dëgg bu dee nii affaire bi jeex na li ko dese ay portefeuille daw dese projet wu mooy ay journal journal la way Russie yi dafa jeex ba sa affaire bi dañu yaakaar ne Russie dafay def ba ñoom ñii def ko bi ñu ñëwee Irak def nañu deux mois quinze jours di bombardé yemuñu dugg biir Irak fii le premier jour ba dugg biir dugg foofu rasé toutes les bases militaires. oui lu lu soxlawul yàq soxlawul rey. léegi xam na ne ñoo ngi indil ñoo ngi indil ay ay ay ay ay kii ak yooyu léegi toutes les zones yi nga xam ne ay train dafa jaar ñu projet yooyu pour dugg yëpp raage na ko door na cay misil yàq yàq yàq raay yi dafa fekk dara du jógee boobu di jaar ci ay train pour dugg oh c'est affaire baal ba baal ba ba ba ba bu dagg éco essence dagee essence dag doo rob di dootu bu leen jaay sama essence le problème bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg di commencé
affaire bi daal saay en tout cas euh, euh, situation bi eh, eh, malheureusement xam nga ñun sunu sunu dëkk yi préparé wu ñu préparé boo xam ni
non dafa am ñuy fooye àdduna ñoo xamoon nañ ne waa ji ne def fii nga xamul mooy kan la koy def waaw yi depuis deux mille dix huit la commencé préparé wu parce que xamoon na deux mille dix huit la njëkk def test su hypersonique deux mille dix huit la ko def mu Pentagone ba ñu kii mu wol leen ko boobu Trump ba fi nekk wol leen ko ñoom ñu jóg commencé taw ñu ne il faut ñu defar lu koy kii en deux mille vingt et un vingt et un bi novembre nga xaw ma ci la ñu seen i test yëpp yëpp échoué vulnérable ils sont devenus vulnérables devant la Russie moo tax nag Russie da leen arrêté boobu poterie laa ngir def CREC ñu bañ leen baax na leen baax na rencontré Bob Biden ah fële si Suisse mu ne ko arrêté Biden daan ko non bu sare mu ne ko baax na rencontré demande ko rencontré bu defee une semaine bu ko mën di ko rencontré mu ne non mu ne non léegi nag gis nañ waa ji comment c'est c'est yi muy wax à l'œuvre précision bi mu am rapidité bi mu am mais yow bisin boo xam ne nee nañ ñu ko dix huit mille kilomètres par heure lay daw dix huit mille kilomètres par heure nee nañ yëpp bu bu taaree bu jëm États-Unis trente minutes donc trente trente minutes action trente minutes pour expliquer trente minutes
non c'est c'est c'est c'est en tout- en tout cas daal affaire bi daal xam naa ni bu ñu deful ndànk moom euh,
faux pas rek faux pas bu doon nucléaire. faux pas bu ci def faux pas bu ñu defee faux pas rek waa ji taal dana taal bis yi. moom du xaar ñu koy wax na ne ko eh, kenn du ko jiitu ci bu dara desul lu nit nit kenn du ko jiitu bot bu bu ci butoo. fi mu nekk nii da- dafa réduire sax boobu saa kii yëpp parce que trois la soxla pour raser toute l'Europe toute l'Europe bu raser leen avec trois bis. cinq bu raser États-Unis ak Canada. moo tax am na am na benn géostratégie su boobu dégg mu ne mu ne l'expansion de de de de l'OTAN même en Europe ça ça n'a pas sa raison d'être quoi. phénomène moo déparé Amérique bi par par par par par par l'Alaska cinq kilomètres moo la séparé. donc danaa maanaam foofu nag fa la la affaire bi yëpp nekk fa la ñuy def seen système de défense yëpp léegi nag gis nañu ne avec les systèmes système nu mu tëddi xay ko sori gi mën nañu ak ci pôle sud bi pôle sud bi amul dara lu koy defal c'est-à-dire que Florida ñëpp ba Californie foofu ci bëgg de raser pour jaarale ko foofu kenn mënu ci dara day egg si sans sans sans opposition day dugg ci day dugg raser ko complètement nekkal di nit ñi xam loolu ba pare yi def ci golo yi ñuy def c'est ça loolu moom loolu loolu laa mënul a comprendre ko loolu laa mënul a yow amoo dem bu ko baleen baal amoo ko te waa yi dafa jekku européens yi non seulement daf leen a jekku ci lekk yekku leen ci énergie
jekku na leen de
loolu daf leen a jekk loolu loolu dañ wuu loo xam ne en 2014 bi ñu commencé def affaire yu caaxaan yooyu créé il a vu que ne dafa amoon moom ay ay ay ay ay ay limites bu accepté nangu toog noppi di liggéey ci suuf mën na ñoo gisoo très très très très très très silencieux ci li ñuy def yow yow ak Chine foofu rek moo tax ñu mën ñu Chine ñu mën a ñu mën a jubóo parce que ils sont très discrets ci li ñuy def il faut que seen dënk du ñu woon dara mais dañuy xëy benn jour rek ne la kaay ñu ne la xoolal balaa nga réagir fekk bi ñoom pare nañu ba pare sa kaw. il bro il suffit foo paare
adduna bi tàkk suñu bopp su suñu bopp suñu bopp dañ dañ ñu jaanal maanaam li
waay non affaire bi affaire affaire bi dafa dafa dafa raglu ah
mais non da- dafa raglu parce que dafa am des idiots yu nekk fii euh, des gens qui sont incompétents xam nga Trump wax na leen moom bu doon moom la ñun ñëpp dañ fi egg si ndax moom di see négocier waay
mais bu ku la bu ci moom lañ njëkk a poussé ci affaire bi il a vu moom lañ ko bëggoon a njëkkee refusé parce que bi ñu sànnee bi mu bi mu gisee nucléaire bi mu gisee hypersonique bi ca la ne ca la ne il faut ñu yokk budget bi pour gars yi créer petit anti défense bi wala créer ay système bu créé ko yëpp deux mille vingt et un deux mille dix huit la woon deux mille vingt et un def seen premier test yi ñu taal yëpp benn benn benn tànk bu ci dëbb daanu bis bu ci daan
ah
ay non mais échec total mais looloo taxoon na la la la daaneel li may doon ba ren woon ci la démissionné daaw deux mille deux deux au mois de novembre ki doon ki ki doon chiffre ki nga xam ne moo géré woon tout ce qui est information technique région Pentagone mu il a bi démissionné lettre démission bi laa di mu ne Chine mu ne Chine soo avance de de vingt ans sur nous Hmm.
mu ne Chine est mu ne Chine est la Chine est en avance de vingt tout ci un artificiel
Hmm.
ah mais xam nga loolu looloo ko tax a démissionné ah moom laa démissionné te moom moo ñëw nga xam ne lépp luy affaire information technologique technologie technologique armement ak lépp moom moo chefoon ku mënoon chef bu xoolee ne ne ñun on est en retard. affaire bi allez c'est ça dans la salle de démission dans la salle de démission des réseaux yi ko moom là je démissionne je ne perds pas mon temps comme ça.
non dafa dafa
So, on a dormi sur le laurier. C'est-à-dire dafa yaakaaroon ne lépp mooy am ay base militaire di di di tiit di di di di menacé di kenn xamul. mais am na boo xam ne nag yàlla kenn du ko dëkku. ak demi boo ko defar moo moom rek loo fi nit def moom lay sóob.
aha
waaw yeah
te bu la béyee ba nga naaw da koy rocci jox ko ñeneen yokk ñooyam
te du la tànn waaw non ox ox oxy- occident bi occident nag loolu moo leen dal
ah mais loolu leen dal ba yu xoolee mais boo xoolee ci ci so- ci ci ci vote yi fii mais vote bu ñu voté premier vote bi il y avait vingt huit pays africains deuxième vote bi bu jógee vingt huit dem vingt pays africains yu yu yu sanctionné troisième vote bi quatre pays africains kii la ñoom duñu duñu duñu contre les cinquante ñoom ñëpp abstenu
africains yi doofu ñu de
ah ku gis ne ne ne léegi ba première fois bi daal di yoon ñu loolu mais deuxième fois bi ñu wa affaire bi commencé wàññeeku. gars yi xam naa dina ko doon wootee naan de ah eh, yow troisième fois bi gars yi de abstenir u. ah dafa ñu parce que on comprend la xam nga le le c' est que marché bi boo boo gis seen loxo.
aha expliquer à, à le, le plus grand marché au monde, c'est l'Asie. C'est Hmm.
l'Asie. Les Européens ne font pas 1 milliard de personnes. Le, le Chine, directement, en 1 milliard 5. Le dollar qui, euh, comme tu as dit, euh, euh, aide 1 milliard 400, ça reste 3 milliards de personnes. Le marché de 3 milliards de personnes. Les gens vont dire, il dit, mais ñu ngi ci presque 4 milliards 5 milliards de personnes.
Hmm.
contre contre contre euh, 500 000 Européens, 300 000 Américains, 300 000 Américains, ça fait 800 millions de, de personnes. Mais tu- mais du benn. Du benn.
du benn de
Non, mais daf- daf- daf- li- li- li- li ñu- li ñu- mais li Chine maîtriser le marché avec le kii de Shanghai là, bloc boobu nag moom moo leen tiital.
Mhm.
la coopération de Shanghai la boobu nga xam ne ay Iran ñun yëpp participé nañ bokk nañ ci léegi ñu ciy bëgg a raser africains yi yëpp bokk ci moo tax africains yi commencé ñoom it bañ doon waxee ñu moom rek ñoom it ñu bañ. daan ñu sanctionné gars yi day sanctionné ñu ne sanctionné leen ñu bu fekkee dañoo sanctionné Mauritanie ak Mali dara dara dara dara génnu ci.
ah
waaw Sénégal loolu ñu ngi may sanctionné Mali premier ministre bi ma ne ko yow de yaa ngi rey Macky Sall leen kii la suivre Sénégal Mali la gën a yombee nga Dakar ak Abidjan bi lañ ko wax mais xam nga li li li li dal Sénégal moo dal européen yi dañu sanctionné ba pare affaire bu affaire bu retombé ci ci ñoom
ci ñoom exactement loolu xew ñu ko Mali déggoo premier ministre Mali moo génn bu ne kii la suukar wuy ma ah bu ne kii la suukar kii la gën a yombee nga Dakaru
kilo suukar Mali
waaw
te dañu naan ñoom seen seen seen suukar moo gën a saf
ma ne nee na leen ak seen sanction gi yëpp. kilo suukar fii la nga tuddee que Mali que que Ndouné que Ndakaaru ak Abidjan yéen a ngi may sanctionné. bu ne leen lii seen essence bi lay jar bi dem leen seen dëkk yi nga xool jaar lay jar boobu ñu ko ñoom ñu ma sanctionné. bu ne ko yow nag dugal dugal nga Macky Sall dëgg dëgg dëgg dëgg Sénégal yi ah Mali bañ gën a yomb suukar.
ah
moo tax gaaguñu de yëmuñu gaaw waaw su fekkee ne demande na kii kii kii mu ne dañ ma nit dañ ma contredire déggoo leen ñu gaaguñu de Macky Sall gouvernement am gaagu ci ministre du commerce bu Sénégal bu gaagu ci ministre du commerce du Côte d'Ivoire ga- gaaguñu ci ñoom ñaar ñëpp kenn gaagu
ah
oui bu le premier ministre moo moo moo moo wax ko tuddee une fois le premier ministre malien la. bon il est très droit. moo génn bu ne ñoom ñu sanctionné ba pare embargo yu mu ne le le kilo de sucre coûte moins cher au à Bamako kaw Dakar à Abidjan qui me contredit. ay nga jànguñu de ay ni du noppi xam nga ñoom réponse distance la ñu mën ñu gaañ. wala buñ ko buñ buñ bu kay da ngaa mun a jël di di dugg noppi.
ah bañ a noppi mais laay laay kii démb maa ngi ci jéem a xuus la mooy euh, Pape Djibril Fall le journaliste là yow tu tu, tu penses Ah.
vraiment que bu demee dana am dara
gë- gëm ko ko waaw man gëmuma ko de
gëm ko ko. parce que xam nga toog ci télé rek di wax.
Hmm.
rafetati rafetati.
hum am nañu ko am nañu ko ba jiitu woon ah il y a des sax mu jox la benn Abdoulaye Deme Coulibaly.
Waaw.
dem fa Sokone di représenté dem pour nekk maire bu Sokone aha
ba léegi nekkagu ko de.
hum hum
nga boole ci beneen Tunkara bi ne woon 2STV.
hum
nga ëpp woon fii gis na ba yëppam.
hum
prix forcé sax mënu ko nekk hum
te xam nga bii prix forcé existé tout hum
prix forcé moom amul déedéet.
Hmm.
donc ñi nga xam ne prix forcé moo la doon dugal yooyu ñoom c'est terminé pour eux moo tax ma ne ko da ngay sonal sa bopp rek da nga doon ñëw kay nga dugg ci coalition yi xeex pour di def la fête aha caajaay nga dëkk nga ne leen district nga ne leen département du Mbour la ngeen ñu dugal département du Mbour nga xeexi département du Mbour man damay ñëw damay damay contrer opposition laa bokk mais opposition laa mais du ma ànd ak groupe bi du ma ngile yëfi naa fekk la ko Sénégal yi duñ la ba ba ba mu waxee nag mooy commencé na ra- raatale yëfi naa fekk ngay def bokkuloo ci nguur gi wala dugg naa ci nguur gi dana ko doon da nga ñëw pour yàq waaye des nag di nga di nga di nga xam ne yéen yéen fay fekk hum effectivement loolu lañ loolu loolu rek lañ loolu rek lañ gis ñoom bon am na ñu ko wax beneen ak beneen fii la boo xam ne moom c'est c'est c'est c'est la sa la sa à à à à kii ko hum c'est c'est c'est un c'est un c'est un kii des Baye Fall xaw ma c'est c'est le c'est le c'est c'est le c'est le candidat des Baye Fall waaw Baye Fall yi day am xaraa xaraa gi non bu bu bu bu faam dara bu faam dara il est Non, doo am dara.
pas il est pas oui ah. non c'est que ñi ñi nga xam ne ñoo nar a ñoom ñoo nar a ñoom ñoo nar a reculer seen seen bopp moom mooy le groupe de Thierno Alassane Sall ah boobu il pense que ni non c'est que am na am na yoo xam ne nit ki day day day day day wàcc boppam hum hum
nit ki day wàcc boppam. et ce gars ah il il il n'est pas humble quoi il n'est pas il n'est pas modeste il n'est pas humble.
hum hum
c'est pas parce que def si nga Macky Sall ci contrat donc nga def lii def nga la c'est bien beau mais da ngay xool fa di Sénégal yi jublu nga jublu fa ak ñoom hum hum parce que bu fekkoon xool loolu la mais parce que mënoon nañu wax ne ñoom ñu ànd ak yeneen yi Mhm.
mais dañu accepté parce que tout simplement ils veulent la victoire pour le peuple c'est pas Mhm.
pour eux hum
ah le problème foofu la Pastef foofu foo- foofu la Pastef nag wane vraiment ni que kii ñoom dañuy yëngu pour peuple bi
pour peuple bi parce que dañu gis nañ ne peuple bi nii la ñu bëgg ñu ànd ci ñoom. même suñu bokkul ci ñoom suñu bokkul ak lépp mais nii la peuple bi bëgg pour am lii ñu def ko sacrifié wu pour le faire. mais ñu ko xoolee déjà Alassane Sa ah Thierno Alassane ay ay ay ay Abdourahmane Diouf ay yoo xam ne yooyu yëpp ay ancien Idrissa Seck lañ.
Mhm.
ay Mamadou Lamine Diallo. mais Lamine Diallo qu'est-ce qu'est-ce qu'il a fait.
Mhm.
wàllu la wàllu la bokkoon ci Abdoulaye Wade ko taxaw di nekk ci la langoon pour nekk nekk député Aha.
alors wàllu gis lañ ne wàllu fi mu nekk nii ñoom ñi nga bëgg a dugg sax léegi ci kii bi ci na si ci coalition bi Mm.
parce que ils ont vu que ils ne présentent plus grand chose ils ne présentent plus grand chose ñu bëgg ko que ñu bañ ko il y a un leader de l'opposition et c'est lui
kenn mënu ci dara c'est pour que ça kenn mënuñ dara yow yàlla koy def
yàllaa koy def
yàlla boo koy def mooy bu bu génnee il ne il il il il il il il il dégage Mhm. Mhm.
am nga dafa am dafa am loo xam ne gis nga gis nga am naa amoon ci ñun moom il a plus que am li Abdoulaye amul ci ñun. ci génération.
wallahi
xoolal bi mu dee dañ génne xaalis. en un jour de trois vingt quatre même pas vingt vingt même pas vingt quatre heures ñu ñu compté plus de trente millions pour le pour le pour le pour le le gars là.
capitaine Touré le capitaine Touré xaw. da ko beneen waxoon. da ko beneen leader waxoon da beneen parti waxoon. coow li lépp loolu la.
loolu la peuple bi ñoo doyle
peuple bi ñu ànd ak moom. dañuy wax ni ñu naan oui une mesure le gouvernement dafay def ba léegi gis nga bu ñu toogoon dix ans bu ñu xëyee vingt jours dañ koy tëj dañ koy tàkk seen loxo. quel que soit alpha parce que léegi mën na ko jikkoon li booy yi taxaw ñoom dañu yaakaar ne mën nañoo ñu jaar ba génn ci ba ne la doon doon ngeen ci génnee doon lii ñu dugg nii dañ ci bëgg ngeen bu tëlee. mais à tout moment boo su dee booy génn leen su Macky Sall du ko leen pare bi donc kay xanaa ba kat daloon ba Macky Sall du ko leen ci pare bi suñu mënee doon ba léegi amul armée amul police amul gendarmerie bu la téye un mouvement populaire c' est pas possible pour Sénégal partout wallahi Amérique gii gis nga li li état yi diversité wu moo tax mais bu ñu ñu ñoo ñoo ñu doon def Washington du fële Los Angeles ak ñi nekk fële nu mu tëddi ñi nekk New York ñi nekk Pennsylvanie ñoo yi daje fii Washington gii kon gouvernement bi taxaw ak wallahi lu ñu bëri armée ñu ko déglu biñ biñ fi taxaw kon boobaa nga dégg président wu Amérique renversé nañu ko fu ne nag non ba- du am dara.
Do- dara dara la yow la jox syndicat yi la jox da leen Coulibaly bi mu duggee ñëw na premier mi- municipalité yi yu wóore woon après bi bi ñu faloo. premier municipalité dafa newoon tuuk. nekkoon mën na candidat. du fa am dara.
naada
élection législative yi passé Tunkara di newoon deux deux deux heures. ca kanam xaw. Gosselin n'est pas plus pertinent que lui.
dara dafa mujjee voilà voilà
xam naa ne ñàkkul Pape Djibril Fall dafa xalaatoon ni comme Ahmed Aïdara ak waay ndooy baan nekk nañu maire rek ça y est quoi bo- euh, euh, presse presse bi war na mu nekk de tremplin quoi
Ahmed Aïdara waa waa yeewi askan bi ñoo ko buuse Mhm,
ñoo ko ñoo ko jël seen candidat jëmm ko mhm,
loolu ko ko teg doy baan tamit noonu la def te yooyu dañoo am du social de def seen dëkk bi rëyul ndooy baan Ndoye Bane.
yeewu yeewu askan bi la àndal
waaw mais ñoom ñoom ñoo ko poussé parce que ñoom moom lañu voteel après Mm, d'accord
parce que Ndoye Bane dafa amoon ay ay ay kii parce que amul les moyens mais non, il était présent sur le terrain effectivement Mhm, il était présent à Pire. dem di régler ay ay ay ay ambulance di ko indi ci dëkk ba nga indi di ko gis. xam nga ute naa yow nga toog ca Dakar nga léegi. nekk ci docteur ji benn émission xaw ma ne da amoo sax émission. yow da ngay parti ci plateau.
di wax rek nga ne Tunkara nga ne émission. ah Aliou Sow ànd ak 2STV. di leen Sénégal ca kanam def ko jëkkaat. boo présenté au Sénégal yi doon dégg nañu xamuñu yi. jàllul. forest amul ko jàll. mais cette fois ci plus forest amul. ndax la la la le département de kii nu mu tëddi bi ñu defar ko ne bu bees bi Kër Massar xaw ma.
waaw
moo tax ñu dindi ko.
Mm,
moo tax ñu dindi le le le le le kii plus forest yooyu. bare gis nga ku ci yaakaar ne yow am nga doole ba war di ji de de de ils auront ils auront ils auront de de de de beaucoup de surprise. ñoom yëpp laa wax.
moom kay ku yóbbu wut coalition boo àndal ñu puus la
ay am mbéy yi yëpp drapeau yi dañ leen di bare. donc dañ dañ bokkul génération quoi ils n'ont pas compris. dinaa la gis que génération bii dana go yore réew mi léegi. bu si mille neuf cent soixante cinquante ba yëpp nga nga lem say bagage dem tëddi.
dem tëddi ndax booy yi dañ booy yi dañ ko booy xam nga booy yi dañoo gëm ay ay ay nu mu tëddi ay idéologie. loolu mooy coow li ak APR ay PDS yoo xam ne ñoo jël bu buri ay PS ana bu même en France le PS est mort. même en France lu lu kii mu nekkoon c'est un candidat xaw ma deux pour cent la am ci élection deux pour cent.
kan ki
yow un kii un kii loolu dañ kii wax ko dëgg bu juddoo Sénégal royal xaw ma
ah bon
deux pour cent la am PS en France. waaye yow soo deux pour cent de l'électorat en France quarante-huit millions nga am ci deux pour cent. y a un problème.
y a un Les problème partis qui vont mourir comme les autres partis, quoi. Comme les autres. PDS, PS, APR, ils vont tous mourir. Parce que génération bii di ñëw, ñu gëmuñu ay idéologie, ay ré- le socialisme, ay révo- non, gëmuñu loolu. Ñoom révolution lañu gëm. Changer réew, c'est tout.
kese
loolu rek moo leen intéressé. Dafa leen seen réew. Changer régime bi, changer ñi koy gérer, ñi terminer. Mais ay socialiste, ay libéral ak ay faalewuñu loolu.
xaaleen ko de Gëmuñu ko.
Mm-mm. gëmuñu ko amuñu ko parce que bu la laajee bu la laajee waa Pastef lan mooy seen seen idéologie amuñu ko patriotisme mooy li ko idéologie patriotisme buy bëgg sa réew gëm sa réew gëm sa réew jeex patriote gëm sa réew
c'est tout mais ay un libéral la ay démocrate Ah.
ma ne moo tax it gis nga leen ay système yooyu la booy bañ Et ce que li ma ci gën a jaaxal moom mooy Macky Sall n'a pas encore compris te ne gis na fii mu taxawoon ak Idrissa Seck mooy bu ñu nee Idrissa Seck dara la la daa ma ne ko Idrissa Seck mbir moomu côté dañ ko faa dugg kon xam na ne kii mun na andi dara ndax nit ñi nekkatuñ ci yooyu nekkatuñu fi
nekk tëj fii moo tax muy gaa indi wax ba ne leen bàyyi na ko na na na ba ne ko ne maire yi ñu fàtte dañu trahir dem Mhm.
bu ñu delluwaatee booy defaat li ñu defaatoon. parce que on a une population extrêmement jeune.
jeune Mhm. am kattan extrêmement jeune gëmuñu ay ay ay ay ay ay ay jox la xaalis pour nga ñëw ral lii boo ko defee dee nga ñi ko def ñi yëpp ñu ne huit maires yi dina xaw ma lan dem nañu wala yooyu yëpp politiquement c'est terminé.
terminé dootuñu delluwaat cause coalition yooyu dootuñu ci dellu.
Mm-mm.
ñoom ñi ñëpp laa wax dañu ne ba ne du kenn ku ciy dugal seen liste pour def la dëkk yi mais bés bu ñu ko def ba ne ba ne leen xam nga am nga li li li ñu li li Macky Sall xamagul moom mooy au sein de sa coalition bii dara tas ah.
Mm.
vote sanction yu métti koy xaar
ah
vote sanction yu métti mu koy xaar ah maa la wax lii.
Mm.
non parce que gisuloo élection légale yi mu def.
Mm.
bu mu nekk candidat c'était de la PR.
Mhm.
léegi tamit candidat yi ñëw législative yi il va essayer de faire le maximum de la PR jërëjëf yi tamit dañ ko posé ay conditions yoo xam ne du ko mën a du du jub dara. parce que li ñuy wax li ñuy répartir affaire bi li ñu nga xam ne liste nationale moo leen doon sauvé buñ deful daal duñ bokk liste nationale
yéé
parce que liste nationale léegi 47 députés la à répartir sur le territoire national 47 la ñu. léegi boo la leeree ne Dakar yow dañ def dara raase bu buñ la yóbbulee bu liste nationale buñ la yóbbee benn benn troisième place ka ba parce que warul nga nekk ministre même warul nga nekk député.
Mm.
parce que waa la élection yi yéen a génn quarante quarante quarante neuf virgule sept pour cent la amoon bu joxoon leen le maximum de députés quarante neuf virgule la ñu amoon ñu amoon daata euh, je pense que amoon nañ ci vingt neuf wàllu amoon treize gis-gis xaw ma am huit yooyu yëpp la te vingt deux nga amoon boo tax yaakaar na ne ay ay ay yi muy def nii ses propres alliés yu koy xaar non coalition bi dafay dafay tas coalition bi day tas nga Dakar boobu bu fa teg leer na ko boo fa teg dëgg leer na ko ne du gañe département Dakar yëpp la boo fa teg yow leer na ne du gañe te boobaa dañuy wut ñoom fu leen dugal ci liste nationale bi Dakar moom leer na duñ ko gañe Dakar il y a il y a ñaata il y a trois Dakar nu mu tëddi Tëngéej deux je pense Guédiawaye Pikine ak léegi Kër Massar donc opposition bi raas ak romb nañ romb nañ romb nañ treize députés wala quatorze députés foofu Dakar rek
Casamance moom xam naa duñ fa mos dara.
Casamance boobu la département de Ziguinchor moom duñ ko gañ loolu leer na leen duñ ko gañ xëy na ay Kolda ay ay ay ay ay ay kii ak yooyu mun nañ ko gañ mais Ziguinchor boobu leer na leen terminé pour foofu boobu leer na ne dañ koy yàq boo tax liste nationale bi ñu bëri di bàyyi ku ñu falul nga nga nga nga woot nga wootee nga wootee sawar
nga lim jël
kuñ ci falul nga wootee sawar laa la wax ni nga leen taas ba jaay non mais mënu mënuñu ko li ci dugaloon ci bële passé ay AFP ak ay PS il faut pas la voir cette fois-ci loolu dañ leen ko ci élection locale yi locale yi lépp dañu jël changé leen def ko seen i nit def ko seen i nit APR léegi ñu ne woon ñu ne woon yeneen kii PS yooyu dindi dañ leen teg fa gaa APR yi léegi nag boo leen ko bëggee def élection législative yi ñu xam émission législative yi les enjeux ñoom ñëpp il faut se le dire
salaamaaleykum.
wala ñu wo- wala ñu wala ñu demandé wala ñu demandé vote sanction ñu wax dara la ci soppi lu ñu woote
maaleykum salaam.
aleykum salaam gën a
gannaaw déwénati waay leen ñu àq waay.
baal lañ yàq yow am na ko yàq sax.
yal na ko fekkee ne gën déwén ak jàmm.
allahuma bis allahuma bis déwén yu bëri kay.
may ñaaw yal na dara.
gannaaw sa ñaan bi gàtt na de déwén rek.
ren ren moom dàq na daaw ba pare ren moom dàq na daaw moom
waaw c'est ça
ah.
donc na ngeen ma jëkkala ah. na ngeen ma baal comme man moom xam nga samay mbir moom yàlla rek moo xam.
non baal nañ la gannaaw yow amaloo ko na amaloo ko naax.
baal leen ma ah boo déggee sama tur bi ñu naan waxal jàmm waxal jàmm jàmm laay wax mais day def fu ma dem wax ko dëgg te xamu au Sénégal kenn du wax dëgg dëgg la boo waxee dëgg rek.
boo waxee dëgg rek da ngay tooñ.
moom mu tuddee wax voilà moo tax mu fu mu dem mu ne boo demee waxal jàmm de aha aha
boo dem tooga ba jàmm laay wax mais dëgg du jàmm dëggoo Sénégal du jàmm dëgg la.
mu ne ma del wax jàmm waxul kër bi géyu quoi waxal jàmm waxal jàmm mais gannaaw nit ki lan moo ko war a wax dëgg wala wax jàmm.
non xam nga dëgg am na dëgg yoo xam ne boo ko waxee doo indi jàmm foofu dëgg la.
jàmm nga fa indi dëgg la waaye dëgg la mais nag boo ko waxee musiba nga indi lool dem nag indi waaw moo problème tax moo tax ñu ne dëkk dëkk dëkk buy yàq moom fen buy defar voilà dëgg bu jaxase la parce que dëgg réalité la mais réalité yoo xam ne kenn du ko wax léegi sax ab daana wax ne bi daaw bu bu ba jaaw doom jéegal rek waaw bi daa kii bi daa bu bejjaaw nee na bàyyi rek mooy yoo xam ni dañ ko wax bu yàgg du dëgg mais nag yàgg na donc boo ko bëggee dindi da ngay indi problème bu rëy loolu moo waral suma affaire bi mais et et et puis gis nga Thierno Alassane Sall waaw
bu doon posé ondret cent léegi boo tur vingt wala dix lay posé affaire bi wàññi na ko ah
non parce que wàññi parce que moom ñi mu li ñi ñi Sénégal yi def seen xol ñoom la cëppe you understand
Aha.
kër la man noonu laa ko mën a jàppee pour le moment yaa Sénégal jël ñoom la bëgg a sëpp xam nga nit bu fekkee ne nit ñi dañoo jël seen xol dugal ci biir nga bëgg a xas ñooñu nit ñi dañ lay bàyyi loolu mooy problème mu Thierno Alassane Sall parce que moom ki ñuy wax muy Capitaine Touré ak euh, Guy Marius Sagna ñooñu dañoo nekk ci xolu nit yi moo tax ma ne bu doon pause cent léegi vingt lay pause am telling you right now man ñu ñëpp wóoluwuma leen ñu ma wóoluwul ci opposants yi dañu bari ay Thierno Bocoum ak ay Thierno Alassane Sall ak ay xaw ma naan Deme ak ñoo ñëpp nduxee ndax rek am réew ma loolu waaw ñu ñëpp da leen di dugal ci mbuus lu leer laa la wax parce que Sonko moom bu neboo ñu def ko ci xol yi rek moo gën ku ko ci deful tim da ngay tardé waaw li am am na ba pare yàlla def na ko bu neboo nangu ko ku ko nangul da ngay sonn sa bopp yaa ngi sa bopp
parce que ñi nga xam ne ñoom dëkk bi mooy xale yi ñoom dañuy jël xol seen xol lañu xar dugal ci Sonko donc ñooñu boo bëggee wax leneen ñoom duñ la déglu duñ la faale duñ lay gën a bañ waaw gis nga temps yi mu waxee ne bu ma fekkee ne damay dem fële wul ji tribunal bu ma kenn topp dégg li ko bari wax sang bi day loo mën sa wax dëgg la def nañ ko mais lii moom nañu dimbale rek lii moom duñ ko def loo ñu ma sa wax ak loo ma loo ma sa wax dëgg la loo ñu ma sa wax danañ ko def mu neex ñu mu naqari ñu mais lii moom non non dañ lay yóbbu ba nga dem ñu yóbbu ñu génne war la yóbbu la ba sa biir kër ñu ñëw toog loolu moom neex la ak naqari waaw loolu moom nañ ñu dimbale rek ci njëkk ak teraanga am tele yi loolu la ko booy wax donc loolu fan la ma saam ci àdduna
allahu akbar te yàlla sunu borom mos a am rek ñett bu ngeen ko mos a déggee juuju wax ju rafet juuju wax ju neex loo ñu mos a wax def nañ ko loo ñu digal def nañ ko mais ñàkk gunge bi nu wax
mun ña- gunge mun- mun rek.
am Mhm.
ñu wax ko kooku moom kooku moom mënul nekk danañ la gunge mais loolu loolu lu ko mos a am ci àdduna kooku eh, ci le fenn rek laa ko gisee ci Seydina Ousseynou Karbala di ko nit ñi boole ak jide yi ne dañuy ànd ak moom mu ne leen bàyyi leen ma yàlla bàyyi leen ma yàlla ak li mu jëf ci barke alxuraanu kër dina daal di jooy ànd ak malaaka yi ca naan ko bu fekkoon ne wedd si ndigal dafa araam te du dagan danañ ànd ak yow loo ko bañ dégg ngeen bu baax li mu wax
allahu akbar
su ko fekkoon ne wedd sa ndigal dafa araam danaan ànd na yow loo ko bañ bañ mu ne leen yàlla na leen yàlla fay bàyyi leen ma bàyyi leen maag yàlla yal na leen yàlla fay te moom xam na li muy fekki karbala xam na bu dee ñu rey ko
Allahu akbar
mais dafa ne leen bàyyi la yàlla ak la mu jëf ci dara jëra soolu da yal na leen yàlla fay dëggu guubu réalité man de ku ma ko waxoon maa leen yéen ñëpp ñëw leen topp ma pour ñu bañ maa rey mais mu xam na ne day dee mais bëggul ñu rey doomu aadama yéen kenn ku ànd ak moom ba ñëwee ba ci yoonoo la ne leen ku jógee wutoon Makka waa Medina na nga wàññeeku yal na leen yàlla fay pour bañ a loraate rek ndeysaan
parce que moom xam na li muy fekk donc noonu la mel ci booy yi lu leer laa la wax de barke alxuraanu karim rawal
mun ko jàppee dëkk bi jéeral lay def dëgg la gis nga lii paase Mm.
ñi takku léegi ñoo ëpp ñu paase lii paase woon Wow.
am saaj naaw billahi wallahi buñ ko jàppee dëkk bi sàkk maa la wax liñ ko bindal
Mm.
li mu am kenn musu ko am
benn opposant musul am li Sonko am ci Sénégal
kenn musu ko am amul kan kenn musu ko tudd sëriñ sëriñ si doo nga ko am en quelque sorte leer laa la wax ah kum neex na baax na kum naqari booye ba yooyu kay Mhm.
loola yàllaa ko def du man policier nag bu nu amoon fulla dañ koy topp mais ci mbedd da ngay sonal sa bopp te doo service dara Mhm.
mooy kaawu Thierno Alassane Sall yeeg ñoom ci Thierno Bocoum ak ñuxum ñuxum yi dañuy dem fenn benn député duñ ko am du na am tous waaye leen ñu benn booy sax dañu leen gën a jëf et puis Thierno Alassane Sall dafa wax musiba li mu wax dafa rëy dafa rëy torop ñu ñu gën a jëppi
dafa rëy
am telu ngi daañ naaw dañ ko gën a jëppi kii daal yàllaa ko defal nii yàlla bu yàlla tànn olof a ko wax sann ci mbott a gën fay ko waaw ku ko jéem a fay da ngay sonal sa bopp rek Mhm.
parce que yàlla Mhm.
ah donc boo def jëppa góorgóorlu jàppale ko moo gën di ko ñaanam Mhm.
lu yàlla def nga xam ne lool mais leneen lu ci waay def daal dañ ciy ñaaw rek li ci def lépp daal dañ koy bàyyi ci loxo yàlla mais nañ ko ñaanal daal moo gën mais keneen ku ci jaay ay chauffeur rek tàng xolam yi da ngay sonal sa bopp Mhm.
ñàkkal ku la sa bopp ak moo mën a doon nag laa la wax Mhm.
yeah. daal bu yàlla taal la sànn ci boppam daal moo gën fay ko ku ci jéem a fay daal da ngay sonal sa bopp kenn fay
wallahi yàllaa ko taal moo koy faj Mhm.
keneen mënu ko fay donc bu ñu yóbbu ko ñu ñaanal ko rek et puis non
wallahi billahi daal yal na yàlla def jàpp allahumma amin yàlla sàmm allahumma amin yal na yàlla sàmm ci réew mi defal ñu jàmm ak salaam loolu daal moo ëpp solo quoi mais si des yëpp daal Mhm.
yokk ci yokk kar karaw ci xar mi la rek ci xaar mi la c'est vrai
waaw yal na yal na yal nañu yàlla dimbali suturaal ñi ñu fekkee na gën déwén ak jàmm allahumma amin
yàlla musal ci saytaane musul ak bala allah pour wërsëg ak wér-gu-yaram loolu dong moo jar a ñaanal li ci des moom ñu bàyyi loxo ci loxo yàlla Mhm.
parce que moom dong mooy dogal moom rek la de ko xurtu jee kuut xuut jë xotoor xotoor ji amul solo waaye da ngay sonal sa bopp rek Mhm.
yóbbu mu bopp yàlla moo fi moo fi sës keneen amul Mhm.
li yàlla doo dara lu leer waa la wax lu yàlla doo tus dong mooy waaj bon nag nañu wékk ci yàlla ñaan ko Mhm.
non non c'est vrai ñoom ñëpp dañu am dañu am genre complexe topp ci gannaaw.
Mhm.
mais dañuy sot
dañuy dañuy am complexe. loolu dañu am complexe.
Mhm.
parce waaw que yow mais bu ñu gis bu ñu gis ñoo ah boo xoolee ci yëpp presque ils sont dans presque léegi jógee soixante ans ci loolu sant ci loolu sant boog presque boog Macky Sall ñëw naase. donc yooyu yëpp noonu ay Abdou Mbaye Abdou Mbaye il a il aura soixante-dix ans déwén deux mille vingt trois.
Abdou Mbaye non non soixante-dix ans.
deux mille trois la ñu tudd.
ah oui.
ay di ay mag ñoom yëpp ay mag lañu ay gumbalu ah gumbalu jàll ba xaw ma ñuy Sénégal ay mag lañu bu ñu xale
ah Abdou Mbaye da bon mag la allah akbar non mag la yow grand waaw mais nuru ko nuru ko nag nuru ko de mais exactement nuru ko man loolu ma jàpp dafa yor xaalis dafa yor Ouais, il est de- dafa- gra- euh, wax wax ja dafa yor dërëm dafa yor yi dërëm
il est de loolu CE3 nag da ngay am jàmm moom boo wéree surtout boo wéree waaw moom moom du du- moom du xëy di wut du du- du du ay mais feebar yi garaaw la ñuy wax waaw du xëy di wër dépensé moom
non c'est que il- il- il- pa- boo pa- boo yoree pa- xaalis mais Sénégal ñu trois quarts bi yor xaalis yëpp yoruñu ay pa- pa- pa- pa- topp la ñuy topp duñu lekk yàpp duñu lekk naan soow duñu def dara mais nag laa la wax benn affaire yàlla da leen alak oui ma gis nga ñi yorul nag gis nga ñi yorul dara ñoo gën a wéri di kaay leen ñu
ah ñu wéeru kay ñu moom laa la wax ñu wéeru kay moom macha allah mais sàcc yi parce que ñooñu alal ji dañ ko sàcc. normalul mais alal jum sàcc mu nga wér. mu gaaw a màgg. mais ñoo yor xaalis ñëpp ay bon bon bon bon bon il est de CE- il est de CE3 Khalifa Sall il est de 55 donc ah yooyu yëpp mag voilà lañu.
voilà xaalis sàll.
nga di kan il est de so- Il est de kan il est 55.
kan il est de 63
Euh, non ma ne ah, Abdou Mbaye il est de 53 il est de 53 il a 62 ans.
waaw mag la ah Abdou Mbaye moom ak Khalifa Sall
Oui, Abdou Mbaye moo ko mag après Khalifa Sall moo ci topp il a cinquante il est de cinquante cinq Khalifa Sall. ah non mais en 1983 il était ministre. bari na woon ah ah gouvernement Abdou Diouf Khalifa Sall. 83 léegi Mais Abdou Mbaye moom vraiment boo ma ko- 83 léegi yaa ngi 32 ans. ci loolu 83 il a 32 ans ren ren ji.
ah
oui yooyu ay bëgg la ñu quoi yooyu cette année bu defaree cette année politique daf leen doon romb.
laay daal loolu il laay daal ak nu mu mën a demee. gis nga gis nga Ousmane. Ousmane moom ku yebu ñaanal ko wala nga tëj sa génn. un point un trait.
Seydina Ousmane ku ci tépp leneen tim da ngay sonal sa bopp rek yàllaa ko def ñun defuñu ko ñun defuñu dara yàlla moo ko defal li mu koy defal donc maanu ci moo gën a rafet daal ku ci wax leneen da ngay sonal sa bopp rek mooy chauffeur bi ma la wax ñëpp ñu ngi dégg ñu wax ñëpp seen xol a bon mais lu yàlla def na nga di kenn jaay ay chauffeur da ngay sonal sa bopp rek parce que ñun mënuñu si dara bu doon man mën nga ko régler mais yàlla moom keneen la ku man mënu ko régler da ngay sonal sa bopp ñaaw ci xare bi te du tere ñu rendre waaw loolu moo am ci kaw Sonko donc mun yeboo daal ñu ñaanal ko moo gën daal li ci des yëpp daal amul solo bu yàlla waxee ne day yéeg kenn mënu koo yéeg bañ a yéeg tere yéeg non non non parce que affaire aji saar bi yëpp ñu feeñ aw mën na ñu bëgg a def leneen mais lépp feeñ na lépp feeñ na nga docteur bi lu mu wax luñ bëgg a ti bu fekkee viol rek la viol amul ay affaire nag sëy ñun suñu yoon waay waay yow dañu suñu yoon man au début au début xam nga moom laa la waxoon au commencement nee naa la man affaire viol bi ñu waxoon mais ay affaire li aussi lu ci suñu yoon ñaari waay yow ñaar ñu toog di waxtaan bu la neexee jaxas carte bi man yooyu waxuma ko bu ko neexee daf ci am droit muy góor bu ko neexee waay yow ñoom ñëpp mu boole ral duma dama waay man yow de sans problème mais viol bi la ñu wax affaire viol la ñu wax mais pour affaire u sëy non bu yeboo sëy ak ñoom ñëpp suñu yoon newut ci loola toppatoowuñu ko man viol laa wax viol mu amul daa seet ñun loolu la ñu wax ñëpp moom la ñu wax bu farak sonk rek loolu mooy sa problème ñu toppatoo affaire u sëy waaye yow gaa yi nit waaye bokk boole ndey ak bàyyi sax di sëy waaye lii di son yoon da cee nekk loolu suñu problème yoon bi ñu wax ne moom laa amul te foofu amul ah
ay kàcc rek ay affaire sëy nag moom ñu waxuñu ko ñu waxuñu affaire sëy dafa jaxasoo yow daal fi mu nekk nii problème yo- yooyu yëpp daal gis nga ay ay ay Mamadou Lamine Diallo ñoom seen cliquog yëpp daal fi mu ne nii daal euh, euh, seen carrière politique bi weesu na leen ndax booy yi booy yi nga xam ne xoolal ku jënd neuf cent quatre-vingt-quatre ku mu jënd deux mille quatre mën ngaa voté ren. ku jënd deux mille quatre mën ngaa voté ren sangam.
ma ne ñoom Mamour Diallo ñu ñoo ko ñoo ko talon seen boo tax mel ne ñooñu booy yi gëmuñu yooyu. loolu moo leen loolu moo loolu moo loolu moo seen problème.
booy dañu faale yooyu gëmuñu parce que leen ñoom gëmuñu seen leen discours seen discours c'est démodé barke alxuraanu karim seen discours c'est démodé booy yi C'est fatt démodé.
ñuy wax sax dañ leen dañ leen fatt dañuy fatt booy yi booy ñu bugg ñu dégg discours yi ñuy wax waaw discours sang bu tedd bi moom la ñuy déglu ñoom kontaan yuuxu mais ay yeneen nit non non ay alsan sàlla ki ay xotor xotor yi ñun dañu waay ñun day kaabish nañu dimbalee kum neex nag sawaa kum neexul booy bu yëy kay non am daan kon ko moom dañ koy ñaanal yàlla rek ci góorgóorlu waaw bu yàlla defee li mu bëgg a def baax na bu ko deful ci ñu sant ko rek gërëm ko ah ja waaw bu ko yóbbu ba pare xayoon bu ko yóbbu tim ñun dañ koy sant ah te du tee bàyyi ko dañ koy continuer di ko di ko support that's why
Ablaye Wade ngi ni ñaata ñaata ñaata kii la def ci ci kii bi
opposition ah ñaa waaw ñaata ñaata yàgg na ci
ah waaw kii nag barki démboo Njaay la dugg am li loo xam ne kenn musu ko am donc bon nag bu ko yàlla yéegalee baax na bu ko yéegal suñ ñu support ko rek naan yàlla ay loolu la mais leneen li si def lépp bu ne boo bàyyi ko chauffeur yi moom dañ leen di tap ñu ngi koy wax ay PDS yi ki ay xurub xarab ay waay ñu dañuy tus waay ñu dañ leen tap ko waay yow ñu dégg naan ay këram waat waay ñooñu ñëpp nduuxee ndax embaré mbaloo ñun ñëpp daal moo di boobu na leen dugal ci benn saag kese sànni géej ñun ñëpp ci saag la ñuy dem saag rek waaw na leen dugal ci saag bi ca fàtte seen i wax ñun seen discours sax seen demandé am télé bi right now seen discours dafa kawe kenn déggatu ko waaw discours gumbaambilu la ñuy def donc booy seen discours bu ñuy dugg seen bopp ñu kontaan bég tedd ki moo koy wax muy jeex na li teen li ci gën lépp amul solo ah ku neex baax na ku neexul jëm bon sa affaire na bopp la yem yal nañu yàlla sàmm ayaa mel ayaa mel nga xam naa gars ñu fanaan ba suba waaye incha allah
ah ok ba ok, loolu incha allah.
ba ni ko gaa yëg ah ah déglu rek maa ngi lay nuyu dëpp paal wax ah ñoo ñu ma ne dama dégg panel bi quoi ku ñu kiiwul rek maa ngi lay ku ma sa wax ci panel bi rek maa ngi lay jégalu di la baal wax incha allah amul benn problème gars di la ñaanal yàlla yàlla dolli ñu jàmm ñun ñëpp daal you know jërëjëf waay
jaajëf aywa
waa laay ana laay waaw da ngay faral jàpp di faral jàpp ba suba.
waaw non da gën nga Thiès
ah jërëjëf la jërëjëf la Sénégal dëgg la.
yii man de dëkk boobu rek laa namm leen ah
ba doog a Ah, àgg. te jigéen ñi.
man foofu laa màggee septembre septembre septembre septembre septembre laa bëgg.
yow yëpp Thiès rek laa namm ah septembre dem demoon naa Sénégal septembre.
déggoo fu mooy benn dëkk ñaari gaar ku juddoo rafet boo dee tàbbi aljanna
ah ba ba ba ba ba ba ba mu def waaju gàtt jooju. daa ma daa ma daa ma garaaj jot na wa.
moom moom bokkul taxul ma yoo xam moom dama ciy génne bu koy mooy rek traiteur Thiès dëkku traiteur dëkku fa ay fa dëkk leer la waaw mi ngi normal
yow ko waaw ceex yaa ngeen jëf waay jaajëf waay merci waay aywa Bye bye.
benn la coow li yee na ko sama gaa ñi wax ji benn la coow li yee na ko Sénégal d'accord ne jigéen ñi ñoo yor réew mi Sénégal d'accord ne jigéen ñi ñoo yor réew mi waa Sénégal d'accord ne jigéen ñi ñoo yor réew mi Sénégal d'accord ne jigéen ñi ñoo yor réew mi am naa boo ko seetloo ba jëm yi jigéen ñi ñoo yor réew mi Sénégal d'accord ne jigéen ñi ñoo yor réew mi mbootaay bu ñëpp di soow fii jigéen ñaa leen doole Sénégal d'accord ne jigéen ñi ñoo yor réew mi fiir bi fiir ba ñëpp di ko coow dinañ ci ràññee loxol jigéen ñi Sénégal d'accord ne jigéen ñi ñoo yor réew mi bépp korite bu développement bu àndoo jigéen ñaa nga jëmi bépp korite bu développement bu àndoo jigéen ñaa nga jëmi bépp secteur bu développement jigéen ña dugg nañ caa. Sénégal d'accord ne jigéen ñi ñoo yor réew mi. bépp korite bu développement bu àndoo jigéen ñaa nga jëmi bépp secteur bu développement jigéen ña dugg nañ caa. bu riir ba ñëpp di ko joow dinañ ko ràññee loxol jigéen ñi. am naa ne jigéen ñi ndax njaboot gee di dem ca seen école
Fatiguewul Diouf li nga wax yëpp dëgg la waaye ku rek jëmale sa kanam daal mu dëll Fatou Wayal